ñoom loolu ñuy wax bari na loo xam ne du ci dëgg dëgg la am na ku ñu suul foofu ca kër ga kër ga nag dafa am leneen coow lu ci jiitu woon muy coowal terrain boobu ñu ko suul xëccoo bu ci doxoon ci diggante ñaari famille muy famille sëñ Moustapha ak beneen famille bay des bi nga xam xay na ñeexoowuñ bi mu demee noonu nag kii gaañu di Katim ture moom àndu nag baaba kër Sy an ak seigne Cheikh Tidiane waaye bi ñooñu làqoo mu jox bopam seigne Moustapha bi mu ko joxe bopam bam faatu mu jël ko rob ko fof euh, vidéo bi rob baa nonu ay jinné yu ñu di ko teew ba mu ngeen gis ni moy xalare yi ko doon defal diko ñaanal kon bañ ko wéy nëbb ba suul ñu waye waaye ñooñu nag dañoo gis ne terrain bi ñom ñoko mom seigne sëñ Moustapha moomu ko fofu ñu ko rob euh, di ngeen ko gis ci vidéo bi benen vidéo bi ñu ñew da ngeen ko ci gis légui motax ñom ñu bëgg a jot ci li nga dal mom modi terrain boobu gis nga waruñu ko fa jënd léegi dafay nañ ko sulli loolu nag moo indi woon coow entre ñaari ñoo ñooñu dem kalaame ji am na ñu gis waxtaan ba ñu la jot ordre ñu génnee fi koor bi foofu loolu mooy coow li maanaam su koor bi nañ ko génnee fa wàll waaye ki ñu fa suul moom du ku ñu rey ku ñu xam la mu dee dee naturel ñi def ko nañu war a def jullit ba denc ko kon mbir mi bi ñu ko toppee daal mbir mi noonu la kon ñu jàpp ne daal. du coowal ko ñu rey suul ko fa wala yeneen ak yeneen kilifa la goo xam si dafa liggéey ci yoon ba faatu ñu jël ko denc ko foofu waaye nag fañ ko denc xëy na foofu moom moo am coow entre ñaari famille kon nag wax ji dara wéru ci journaliste yi nag yenn saa yi ñun dañ ñu baaxoo di indi yu mel nii moo tax toujours suba rek nee naa leen état moom yu mel nii yàgg lii yàgg na waaye fi mu toll jamono jii li ñu soog a soxlawoo nit ñi wax ci ñoo ngi ko soog a soxla bi ñu jógee ci problème mu booy junne yooyu léegi il faut que ñu tegalaat nit ñi dara ci mm, ak ndawal ci ndab li voilà kon bu leen ko jàpp ne dara la problème famille la daañu ko réglé ci seen biir état nag moo ñëw dugal ca xëy na am moo waral coow li yegg fii jërë ngeen jëf mbokk yi ba après mu dugal leen bi des pour ngeen gën a a comprendre. waaw jërëjëf euh, sëriñ su bari waaye jërëjëf sëriñ Lamine Wade waaye jërëjëf mbokk Info 7 yi ñëpp ñoo leen di ziar baax a baax waaw di waxaat tuuti rek li fi may jeexal daal moom mooy que ni i radio ak yeneen media yi def yépp liñ def ñoko tay parce que li yombon na lool ñu mëna a xam qu'est-ce qui se passe ba lañu mëna a nouvelle bi kan mo faatu kañ nga faatu nan lañ ko suulee lepp ba bala ngay jàllale li information day complet ak lan mo waral sulli gi ba nga naan gendarmerie ubbi na enquête na nga dem lijjanti gi ki ñu sulli kan la lan mo tax ñu sulli ko ku ñu ray la wala lan la ba boy jox information nga baña lendeul mbir mi lama doon wax nak barki dembu ca maître baabu ja mom la wax gis nga dafa am lo xam ay tapalé la ci journaliste yi di ko def parce que ñom mo lañu ñu joxe information bu complet mais defuñu ko information bu complet mom moy ñew ñi wax ne réellement li passé ni problème du problème suuf la débuté wax ñu li xew ne problème suuf bobu ñaari famille ko séq ñaari famille xëccoo suuf si ah waaye ki nga xam moo di sëñ Moustapha kat foofu jël na ko waaye am na sax ku fa jot a suul famille ba nag loolu mënuñu ko accepter ñu ne nag kii day dañ bañ demalante ci wàllu yoon xëy na ñi ne ñu ëpp loxo bu gudd ba gendarmerie am ci yoon ñëw suñu koor bi nit ñi xam qu'est-ce qui se passe la mais doo xëy naa leen ku nit ku ñu rey la ñu trouvé kër sëñ Moustapha si police ngay enquête jàpp nañ ci fukki nit. te waxoo carrément ne ñooñu dañoo opposé wu ni kii kenn du ko sulli maanaam lii ay information la site internet yi ak yenn rajo yi mel def yoo xam yoo tey de xam nañ ci ginnaaw la ñu nekk xam nañ ñu def il faut ñu arrêté ça bala ñoo taal réew mi parce que lii baaxul suñ jëmee réew mi baaxul kii ay kàcca ki fen di ci dëkk di ko jox nit ñi nit ñi di gën di féewoo xool nit ñi gën di tàng loolu baaxul ci bi réew te sa soo gis saa boo xëyee ñi taal ci benn nag voilà foofu laa doon jeexale ci soir bi. beneen bi ñooy jaare gars yi waaw li ngeen ne am na solo waaye li ëpp solo rek mooy li leer li leen demoon te leer moom. waaw ndax euh, xawoon na doy waar ah. moo tax euh, man li may interpeller rek képp koo xamante ni partagé woon na audio yu njëkk ya waaw na profité partagé waat yeneen yi waaw pour nit ñi xam ne carrément waaw nañ joxe information yi baaxul waaw doy na waar nag doy na waar. sëriñ maxtaar gay boroom salaam di fajkatu aada cosaan bu mag bu yàlla may bu ñu nangu lool fii ci biir réew mi ak bitim di yëngu ci lépp lu jëm ci wàllum fajum aada ak cosaan taxaw na ngir saafara leen seeni jafe-jafe yow mi bëgg a seetlu moo xam joni joni wala sax ñu fanaanoo la listixaar la yow mi bëgg a bayre waaw bu saf sàpp wala ubbeeku wala sax ñu aar la yow mi jigéen bëgg borom kër gu baax lool ci yow man laa muñal ba noppi man laa yore wala sax yow jigéen gi bëgg tànk maanaam doom mu Maxtaar Gay borom salaam rek nag moo ma ci doy yëmul foofu sax ak yéen dangaa bëgg a tukki maanaam dem bitim réew këy tëggatémbe maanaam dëgër loolu daagul gaa dem seeti sëriñ Maxtaar Gay borom salaam moo ci man koo manti yow mi yor kër bëgg koo jaay bëgg mu gaaw loolu yow mi wut liggéey mën a koo am yow mi yor place bëgg mu dox lool waawow dox lool takkat wër ba wër jeex wër ba ci dàq mooy gis la ngay wër yow mi wër tul gu baax waawow tul gu baax lool ba ba foo leen xool ak sëriñ maxtaar gay borom salaam yow mi yor place am na ñaan gu xam ne su la ko defelee jeex na loo jaay mu jaay yow mi bëgg a jokko ak moom mën nga jokko ak moom ci numéro téléphone yi boo leen ko defee seen aajo dina fa sëriñ maxtaar gay borom salaam salaam makan sëriñ maxtaar